ci teewaayu kilifa yu gën a kawe ci réew mi si la stagiaire yu ñetteelu promotion bu l'école supérieure de guerre ak sixième cours d'état-major jot seeni nijaasa gannaaw bi ñu leen tàggatee ci dirub fukki weer dañoo gis ne li nga xam ne mooy lijaasa bi la tax ngeen am ko mooy da ngeen liggéey bu yàgg ak tamit wane wàllum engagement gis nañu tamit wàllum yarute ak li nga xam ne mooy seenu teewaay saa su ne dama leen di félicité di leen feddali seenu réussite. ñoom nag ña nga tollu ci ñeenti fukki récipiendaire ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ya jóge ci biiti réew bawoo nag ci juróom-ñetti réew yu wuute yu ci mel ni Côte d'Ivoire Cameroun. Niger Mali ak yeneen ci li ñu leen tàggat nag bokk na ci li jëm ci wàllug technique de travail ci état major ya waaye itam ci conception planification naka noonu jiite ay opération interarmée nationale wala multinationale waaw tàggatu bi day tax ñi nga xam ne ñooy ay stagiaire daa di amal li nga xam ne kat mooy wàllum dénkaane maanaam fexe ba xam la nga xam ne mooy wàllum défense ak wàllum kaaraange waaye fexe ba li nga xam ne mooy ay crise yi nar a ñëw ñu mën koo càmbar rawatina itam ci environnement géopolitique bi nga xam ne moo am ci àdduna bi yëpp. ci jamono joo xam ne li ñu faral di gis yenn ci ay réew Afrique bokk na ci ay takk der yoo xam ne dañuy jël ngànnaay ngir jël gi institut de défense bu Sénégal daal dinay xelal récipiendaires yi. xam leen ne wàllum singularité ci li nga xam ne mooy takk der yi loole ñu ngi koy am ndëgër laay ci li nga xam ne kat mooy pouvoir politique yi nga xam ne dañoo légitime ci commandement bi nga xam ne moo jaarale ci wàllum respect ci neutralité ak tamit wàllum cohésion. institut de défense bu Sénégal nag nga xam ne li ko composé bokk na ci école d'état-major école supérieure de guerre ak benn centre de doctrine liggéeyam nag mu di tàggat ñi nga xamante ne ñoo war a jiite force armées yu Sénégal ëllëg waaye itam yeneen réew fexe mu doon personnel boo xam ne dina mën a taxaw askanam ci jafe-jafe yi nga xam ne da koy jànkonteel ci wàllum kaaraange.